naturel aywa Mambey. lii di évident je pense ñëwaat na ci nee ñu def nañu ay analyse gis nañ ne am na produit. bu nga xam ne libération euh, voilà. am na produit bu nga xam ne gis nañ ko ci euh, ndox mi nga xam ne jël nañ ko comme échantillon euh, xool am na produit bu si nekk toxi peut-être loolu moom moo rey jëndi am déet lu mu ci manti doon. Euh, comme ni ngeen ko waxee rek enquête bi dina ko génne ndax dafa laaj enquête. Mhm. te bu dul dara nag ñu wax ko ñu bañ koo wax sunu nappkat yi sonn nañu. te mhm. biir géej euh, fa ñu daan yegg pour am jën mënatuñ fa yem gën am jën dañuy dem ba sa biir doog am li ko waral moo di. ñàkkum jën bi nga xam ne moo nekk si biir géej ñàkkum jën boobu nag moom mooy euh, chalutier yi bateau yu mag yi nga xam ne ñoo ñëw lépp lu nekkoon suñu géej ressource halieutique bi yëpp euh, jël nañu ko donc nag nañ ci bàyyi xel bu baax loolu moo war a njëkk nekk euh, combat bi ñu war a mëne euh, laata ñuy dugg ci ay sotti nañ seex lu mu ci manti doon Yacine yaa ngi doon wax sànq ci courant bi ah ñun peut-être yenn ay Birame doon expliquer c'est trop pour le sénégalais lambda bi nga xam ne moom consommateur la loolu affaire waa Sénélec la ay nu nga ko waxatee xaw ma centrale Tobène xaw ma produit bu ñuy utiliser yooyu yëpp loolu seen affaire la nous les consommateurs nga xam ne ñun dañ ñoo jaay. Mhm, c'est moo di nañ ñu jox. courant doy c'est ça ñun dañuy jënd te nag seen lii nga xam ne moom mooy coupure yi àdduna ko neex a neex ba mu impacté peut-être positivement ci suñu facture yi ndax facture bu ñëwee tey la gën a cher ñi yor carte bu ñu jëndee woyofal xaw ma sakkanal euh, euh, lam daan doon lay doon amaana sa mu gën a néew donc mënuñu di fay courant ba pare facture ñuy fay ba pare ñu ñuy andil explication yi nga xam ne ñun suñu yoon nekku si loolu seen cuisine interne ñoom waa Sénégal nañ ko gérer ñun les consomateur li ñu bëgg tàngaay bi fii mu nekk nii. Mhm. nañ ñu jox courant bu doy. ñu loolu la ñu bëgg li ñuy wax nii yëpp nañ ko lijjanti seen biir intéressé wu ñu. ayca ñu waxtaanee kon yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci euh, liste yeeg askan bi fii ci diwaan ndakaaru euh, ñu ngay jox ne kon dañ ko rejeté. Euh, waaye nag rejet bi nee na ñu dil bi dafa mel ni mu ngi tàmbalee xeeñ dil baa ngi tàmbalee feeñ masque yi mi ngi tàmbalee wadd nag képp nga xam ne yaa ngi woon ci mbir mi liñ naan ku lekk si suppa kànja bi faw nga tax a ti Euh, Baye Ili moo ko doon wax ñii nga xam ne ñoo lekk si sumb kàjje bi te tax tiir nag ñu ngi tàmbalee feeñ <laughs> ndax nee nañu président Macky Sall bi ñu génnee seen liste waa Benno Bokk Yaakaar yi dañoo gis ne moom ñu mu ëpp ñu mu investir euh, euh, bokk na si mooy nit Khalifa Sall yi ci liste Benno Bokk Yaakaar yi Khalifa Sall yi est-ce que du loolu mooy deal bi laaj la point d'interrogation la et si c'était ça le deal nit Khalifa yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu si bëri Bamba Fall Jean Baptiste mm-hmm. le voilà ñoom la ñu investir Alioune mu ngi ci ñoom la ñu investir boo xamee fii euh, euh, gis nañu leen ci liste bi est-ce que du loolu moo nekkoon dir bi point d'interrogation la euh, laaj nañu laaj la bu nga xam ne dañ ko samp jëm nag ci Déthié Fall nee na nag jëm ci soupçon yi nga xam ne moom la ñu njort ni kon dir baa ngi ci biir Déthié Fall wax na ci te du nangu nag ñu daal di koy sacrifier moom Déthié Fall bu gaan ngay dal démb amal na janox taskatu euh, euh, xibaar yi moom it doon andi ay leeral ci euh, li sabab kon ñu rëkkale ko jëm ci wàllu mbaa parrainage yi nanu ko defoon ca présidentielle la noonu la ko defaat ci législative yi Bougane Gueye Dany moom nag yëkkati na kàddoom nee na du bàyyi mu sedd am na ay preuve yuy wane ne kon fraude bi lu njig njàkk président Macky Sall moom moo di euh, euh, njàkk moom gëm sa bopp nee na nag xam naa nag euh, président Macky dafa dem ci salbendom xaw ma korom ak fay xaw ma ku mu ci manti doon doon def gisaan ñu xamal ko ne ku gàtt ku xees ki <laughs> ku gàtt ku xees ki moo la nar a wuutu <laughs> ku gisee yu gàtt xees bi ci réew mi ñaata moo fi am en tout cas yéen a kaay bi di Bougane Gueye Dany yéen a kaay bii di laaj tribune ñëw na ci li nga xam ne moom mooy sorti Bougane Gueye Dany Massamba Mbaye ak yaru moom mooy commissaire du pavillon euh, Sénégal jëm biennale de l'art euh, africain contemporain euh, Bougane ma mbay ñu koy nuyu bu baax moo nekkoon fii ay ayca Vox Populi dafa ñëw ci jeu de dupe Yewwi Askan Wi wax fa dëgg neex yàlla fu mu nekk nii nag ay naxante la ci biir Yewwi Askan Wi naxante googee tax na ba tey biir Yewwi Askan ma ne sax wax ne tasaaroo la gën a la gën a jege ndax division bi ne nemmeeku nañ ko fi Déthié Fall mandataire bi Yewwi Askan Wi Saliou Sarr cordinateur bu taxaw Dakar ku si nekk mu ngay joxoñ sa ba euh, morom baaraam naan yawa lu njig njaak yawa kon nag ñaari njaak yi ci boppam Déthié Fall Saliou saar ku si nekk mu ngay jéem a joxoon sa borom ne ko yow mi yow yaa sooke euh, tey jii bu ñu demee ba nar a rejeté liste Yewwi Askan fii si Dakar yow la Déthié Fall moom nag mu ngay gën a enfoncé kii di Khalifa Sall euh, Saliou Sarr moom nag nee na du mandataire moom Déthié Fall mooy wax Saliou Sarr du mandataire mais moom ci boppam la jox li nga xam ne mooy liggéey bi moo doon def moom Déthié Fall jëm ci topp dossier bi ba ca biir direction générale des élections ba déposé li nga xam ne mooy këyit ga wóolu Saliou Sarr moo mu dénk ko ba dénk ko bi Euh, euh, moom nag ak yenn agent yu direction général des élections ñoom ñoo def seen i deal ba sunu euh, liste bi ñu namm ko rejeté fii si diwaan Dakar Saliou saar weddi na ko ba mu set nag moom nee na du nekk bayu sarax bi moom Saliou Sarr comme démb ni ma ko waxee nee na Déthié Fall bu ñu waxantee dëgg rek moom moom moo moom moo cachet cacheté bu dee caché rek moom moo caché 34 dossiers yi nga xam ne moo nekk ci liste nationale bi ak suppléants yi la commission pour confirmer mais dire nee na commission bi wax fa dëgg neex yàlla bu ñu waxalee yàlla rek nañ wax dëgg Déthié Fall lu ñu wax dara amu si kii caché moom la du keneen donc diggante Saliou Sarr ak Déthié Fall ñu ngay buuxante kàddu gi maître Moussa Diop moom nee na moom assignation mbir yi du bàyyi mu seen moom euh, euh, njóobeen bi maître Moussa Diop nee na du bàyyi mu sedd yalwaanul àbbul ñaanul affaire bi da koy topp ba mu sës moom maître Moussa Diop te dana dem ci yoon euh, yóbbu mbiri ci yoon. luñ ko ko ah maître Moussa Diop ci euh, seen liste bi ñu bëgg a rejeté. waaw te nee na nag mbir yi du lenn lu dul xalifa Sall wala diil bi nga xam ne moo am seen biir du ko bàyyee noonu. Eh, waaye yooyu seen biir. si waaye yooyu dañoo dañoo portante plainte. moom moom nee dem moom noonu du bàyyi seen. escroquerie politique la ko tuddee. waaw ah, waay donc nag day dem ba mu sës. Euh, moom ci boppam maître Moussa Diop moom moo yëkkati euh, yooyu les kaddu ci yéenekaay bii di bokk Vox Populi ayca ñu jàll ci li nga xam ne mooy le témoin le témoin dafa sampu laaj kii de Salif Sarr ou de Fall di la vérité Anta Saliou Sarr ak Déthié Fall ani kan moo si wax dëgg ku si nekk nee na liste bi mu demee ba koy rejeté c'est parce que diw la diw mooy Saliou Sarr wala diw mooy Déthié Fall national bi yeew bi euh, Déthié Fall moom na nag nee na fi mu teg kàddu gi mooy wax fa dëgg neex yàlla cachet bi bi demee bay def cachet maa ngi jël cachet bi jox ko Saliou Sarr ndax wóolu ko waaye Déthié Fall weddi na ba mu set nee na neexul ba neex waa direction bi nañ génne wax dëgg commission bi nga xam ne ñoo doon jël dossier yi nañ wax dëgg. nañ wax ñoom ñooy témoin yi. lu dëgg ji. nee na moom ci boppam Déthié moo kase moo kasete. waaw moom yoonam nekku si. nee na lépp Déthié Fall la Déthié Fall bu mu naan wiiri wiiri naan ay man man maa jox Saliou Sa kase beex yooyu. nee na moom yoonam nekku si lépp dossier bi sa Déthié Fall moo ko topp ba ni ñu koy dugalee biir si euh, euh, kon fa ñuy déposé li nga xam ne moom mooy euh, demande de candidature moom nee na yoonam. nekku ah, fa ñuy moom mandataire mooy def décharge wala bureau moo tax moom gën mandataire donc moo habilité def décharge de. tu sais dans cette histoire euh, mandataire bi day am copie Sénat am copie direction générale des élections am copie. Euh, kenn mënu ci nax sa morom ci ñett ñooñu ñuy wax mënu ñëw indexé direction générale des élections mais ki nekk direction générale des élections euh, ki ko jiite mais nekk na fi avant Macky nekk na fi ci nguur ka Ablaye Wade ndax Ablaye Wade indiwaat loolu nga xam ne moom mooy direction générale des élections bu doon dañuy naan ne dañuy tàppale wala dañuy euh, am fu ñuy far kon est-ce que du woon far ci Ablaye Wade ba du fi jógee ci 2012 euh, donc il faut pas que ñuy euh, nasaxal suñu administration ci wàllu woowu muy directeur général des élections di ki nga xam ne moom moo jiite commission bi yore réception wu dossiers yeeg liste yeeg yooyu ñoom ñëpp ce sont des commissaires yoo xam ne ni du question nguur moo fi nekk waaye seen liggéey la te euh, seetu amuñu benn parti pris sur le plan politique. voilà parti pris ou lu mu ci manti doon jàppal ne kon waa benn euh, waa gëm sa bopp ci biir le témoin Bougane Gueye Dany ak coalition gëm sa bopp nee nañu nag plan la le fait moom ñu écarté que ci législative yi plan la bu nga xam ne direction générale des élections ñoom ñoo ko tëgg ànd seeg ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall kon nag deal bi du lenn lu dul président Macky ak ki nga xam ne moo di waa direction générale des élections modification sur la liste euh, départementale non paritaire bu ay Yewwi Askan Wi en tout cas fii ci Dakar Sud Quotidien nee nañu direction des générale bu élection yi ñoom ci boppam dañ ko bañal waa Yewwi nee nañ am lu ñuy remplacer am lu ñuy modifier euh, jëm ci ki nga xam ne rek euh, moom mooy waa Yewwi Askan Wi ak nag la nam moon ci jëm ci remplacer ku ci mel ni kon Pala Samb ñoom nag dañ leen ko bañal ni ki démb source a dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy Déthié Fall Déthié Fall nag moom nee na coow li coow li Saliou la bu ñu bëggee xam lan la Saliou la et Thiendella la Déthié Fall moom mi ngi pilone Saliou ak Thiendella la moom Saliou wax fa dëgg neex yàlla nag am na lu mu tontu après quatorze virgule cinq kilomètres de voirie yi wàllum yoon bi nga xam ne ñu ngi koy defar sa mbuur jàppale ne kon euh, ànd seex waa euh, Promoville Samba Ndiobène Ka door na ab yoon bu nga xam ne linéaire bi mi ngi toll ci 1,6 kilomètre 366 nouveaux lampadaires ñu jot ko foo def foofee euh, sa euh, Mbour ñu jàll ci Sonko devant le juge suprême le préfet introduit des recours en annulation contre les actes du maire de Ziguinchor mooy ngéntewaat bi nga xam ne mu ngi ko bëggoon amal euh, jëm ci liggéey bi mu sumb foofee sa sa dëkk ba ak yenn tali ñu koy ngéntewaat coow am na sax en tout cas loolee yóbbu nañu ko ci yoon Déthié Fall et Saliou Sarr se ñoom ñaar nag wax fa dëgg neex yàlla waaye yeewi dañ leen war a oo teg leen ñoom ñaar tegal leen chaise ndox hmm? ñoom ne leen wax leen dëgg bu ñuy xeex ñoom seen biir ñu xeex seen biir mais Déthié Fall ak Saliou Sarr mi xam nañu bu baax ce qui se passe buñ sonal ñi nga xam ne ñooy waa yeewi nañ waxante dëgg ñoom seen biir yeewi askan wi ci l'observateur xalifa la ñu def ab taxaw seetlu def ab décryptage bi nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, politique am législative les vérités de Saliou Sarr ci l'observateur liste yeewi fii ci Dakar Déthié Fall a traité cacheté déposer les dossiers moom Saliou Sarr nee na Déthié Fall moom moo def cachet ci dossier yi moom moo ko traité te moom moo ko déposé te j'ai des témoins et toutes les opérations son filmer waa tamit xanaa lu ñu filmé kay mooy li ne fàng te li ne fàng kenn du ko jeex Saliou génneel filmé yi partagé leen ko. kon ah, nee na filmé nañ ko. waa léegi partagé leen ci euh, vidéo bi ci réseaux sociaux yi ñu xam partagé leen ko rek ñu xam léegi kan moo déposé entre Déthié Fall ak Saliou. pour ñi nga xam ne mbir bi intéresé na leen mu ngoog. mais mais dépôt dëcc moo déposé wala saaliwu mais comme nangu nañu nangu nañu ni li tax liste bi baaxul def def la bu bàyyeeku ci ñoom ñu ko. ci ñoom tayef la kon. si ñoom la kon luy jubluwaay bi. si ñoom ah. jubluwaay bi ngay xëj ne yegg si na léegi moom mooy liste yi nga xam ne dañ ko rejeté. deal de l'année. diir bi nag am kan mooy victime ba Barth bokkul ci victime. non askan bi ñooy victime ndax confiance bi ñu amoon ci coalition bi. Yacine temps bi daa dem. Mm-hmm. ayca ñu jeexalee libération les analyses confirment donc le désastre donc nee nañu euh, euh, euh, wàllum géej gi benn produit tour ñu ko fi lu naturel la rek donc dafay faral di am loolu en loolu la ñenn ñi wax waaye nag yéenekaay bi di libération nee na dañu def ay analyses te gis nañu ni am na produit toxique bu si nekk hexanoïque gis nañ ko ci 64 pour cent. Euh, l'acétophénone tamit détecté nañ ko si toxicité jëm ci substance yooyee tax na yenn jën yu ci bari mën na leen a mën na leen a rey en tout cas yéenekaay bi euh, euh, ñëw na ci voilà kon nag Yacine yaakaar naa ne mën nañ yëkkati jotaay bi en attendant. merci beaucoup ñëwoon na ci li nga xam ne moom mooy DGIE ak nag Bougane Gueye Dany la mu ca wax. xanaa Oja amul tey. Hmm? Oja am Oja Yacine may ma Oja. nee voilà Oja dafa ñëw ci euh, euh, Gana Gueye ah Gana moom mi nga xam ne dafa bañ a sol mayo LGBT bi nga xam ne ñoom ñoo doon def euh, promo équipe am promo LGBT maanaam borom ñaari tur yi moom en tout dafa bañ. dafa bañ na du sol maillot boobu gis nañ photo euh, euh, gars yi di ko partagé di ko jaajëfal rafetlu la nga xam ne moom moo tax mu nekk ñaani bañ naa jëm ci loolu premier ministre bi euh, di ko joxoñ baaraam parce que démb def na benn sortie di ñaawlu nee na faw ñu sanctionné Gana Gueye loolu ñoom seen affaire la en tout cas bu Jamra mi ngi nii maam Makhtar mi ngi jaajëfal Gana Gueye nekk ni nga def noonu la président Macky Sall mi ngi toog jàpp sikkim bi xëy na di xool ëllëg lu muy mujj ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tribune bi Gana di defilee wane boppam donc mu def lu am solo nekk sénégalais. kii signe et notre salut il porte quel maillot Khalifa Sall ak Déthié Fall Khalifa Sall ak Déthié ah, ah ñoom nekk nekk ci ginnaaw Valérie Pécresse moo kon ñaari actualité la boole Valérie Pécresse voilà ñaari actualité la boole koy joxoñ mooy Valérie Pécresse moom moo bind nee ni daal ñoom mënuñoo d'accord ci ay mbiru euh, ndax footballeur warul nekk yem ci footballeur mooy demander à ce que ñu ko sanctionné ndax euh, dafa bañ a sol euh, ay maillot ak yooyu bon rouge <laughs> merci beaucoup. merci sama moo dàqul sax moo tax moo xam naa mu yóbbaale ba tax ma. ànd ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci juróom-ñetti waxtu Zik FM Sen TV asalaamaaleykum li gën a fës ci boppu xibaar yi mooy napp mi jaaxle gi ci am ay jën yuy dee bari lool ñenn jàpp ni daa am lu ñu ca sotti mais en tout cas ki jiitee service pêche fële ca diwaanu Mbour bi mu ko nemmeekoo Saly mbuur Ngaparou Somone Joal ak Popenguine la mu xamle mooy phénomène la rek bu sabab loolu la di ngeen dégg kàddum ci xibaar yi. Déthié Fall élection mën naa bañ a am bu fekkee li xeeñ sàlliwul. waaye moom moom itam def ne précision ci lu tënku ci bu fekkee dañu nasaxal list département bu Dakar ci élection législative yi ñu dëgmal Déthié Fall daa joxañ baaraamu tuuma Saliou Sarr jamono jooje nga xamante ni bii euh, Bougane Gueye Dany itam coalition gëm sa bopp ngay tuumaal Macky sàll euh, ci ak jalgati goo xam ne def nañu ko ngir mu bañ a bokk ci yooyu lay élection daanaka def na démonstration bu am solo ngir weddi li bàyyi ko ci direction générale des élections tàggat yaram dinañ ci ànd ak euh, Baye Mante Mboup yéen a kaay